ngéej la ko wër la ñu xamle moom moo di nag loole war nañ koo mën a tegaat ngir dem ak dikk gën a yomb mbokk yi tënk yaa ngoog bu ngeen taaxirloo tuuti ma dikk ñu aywa daleen ak jàmm ci jotaay wi yor-yoru Cambérène xam ngeen ne tey jile eh, la ñu wuyu ji eh, appel bu Seydina Limaamu Laay al Mahdi tey lay door jàpp li nga xam ne moom moo di ëllëg tey jile eh, di bés bu njëkk mi amal nañu li nga xam ne moom moo di ubbite gi fa nga xam ne moom moo di ca Cambérène yor-yor woowee suñu ay ndaw teew nañu fa ngir daal di ñuy jukki lépp loo xamante ni itam ay kaddu la yu fa ruusee maa ngi leen doon wax ne Mamadou Amine Laay bi yor kaddu yi itam am na lenn ci loo xamante ni jot nañu ko jottali fekk fa Pape Fara ñi ngi Pape Fara laay laay maa ngi lay nuyu bu baax a baax. maa ngi lay nuyu di la wax laay laay laay laay Alassane fay la ki nga xam ne moo nekk bërëb bu sell bi ci ginnaaw nga xam ne moo nekk xabru Isa Ruuhu moom mi nga xam ne mooy buntu naa Limaamu Laay tey nag mooy premier jour bu appel bi mu nekk cent quatrième édition téeméer ak ñeent fukk ak ñeent bi nga xam ne Seydina Limaamu Abdoulaye mu ngi woon nit ak jinne ñu yow daal di dem ci boroomam tey nag lañ ko ubbi muy le 10 fi nga xam ne moo nekk ci Cambérène ci suba si nag fii dafa fees dell nañ koy baaxoo di defee rek ñoom ñëpp ñu daal di sol lu weex ñëw toog ci suufu tànt yi suuf su sell si nag di daal di déglu li nga xam ne moom moo nekk xutba bi imaam bi nag daal di yëkkati kàddu solo gannaaw ba nga xam ne nag woote ne ci jëm ci yàlla woote topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam situation dëkk bi nekk na loo xam ne tamit soxal na ko mu wax ci ndax nag wàllu politique gis nga ak rapport élection présidentielle xam nag suñu kilifa diine yi ñoom lépp lu xew ci réew mi ñu ngi ci ci am nañ ci dégg-dégg moo tax nag nee na boor bi mu ci mun a doon muy nguur gi wala ku jege bu kenn taal réew mi te faaw ñu waxtaan nee na nag faaw ñu toog ñu waxtaan. ñu xool naka la ñuy def ba génn ci jafe-jafe yi réew mi bu ko kenn taal ndax nag moom ci unité la woote maanaam booloo cohésion ñëpp daal di ànd daal di doon jàmm nag daanaka discours la bu am solo boo xam ne mu méngoog thème bi nga xam ne loolu lañ def jëm ci wàllu cohésion politique ak unité ak leneen lu mel yaakaar naa daal tey fii ci Laayeen ku fi ñëw. sa xel dina fees dell ci yàlla ñu daan lay jox yóbbal bi nga xam ne di nga ko mën a yóbbu dem si sa borom topp yonente bi salaa salaam naka noonu ci yëfu àdduna li nga xam ne nag moom moo jëm ci sa wàllu diine li nga xam ne nag moom moo nekk tamit wàllu àdduna jëm ci wàllu politique bi xew-xew bi tey wax nañ ci lu bëree bëri nañu fi ñu ñëw Seydina Limaamu Laay te mënoo dem egg ci Seydina Limaamu Laay te jaaroo ci bunt bi kon bunt baa nga Seydina Isaa ruuhu laal ñëpp daja nañ fi sol lu weex tàll ñaan borom bi di bërëbu ñaan yaakaar naa ne ñaanal nañ Sénégal jàmm daal di fi am discours bu am solo daal la nga xam ne moom la ki nga daal di yëkkati fii nga xam ne moo nekk kàddu yooyu nag vraiment nekk na loo xam ne sénégalais yi ñëpp daal nañ ciy bàyyi xel ci discours bi nga xam ne mu ngi ko dem def moom mi nga xam ne nag moom moo nekk imaam euh, Mamadou Amin Laay moom ci boppam boobu la discours la daal di yëkkati Cheikh daal di koy wax fii nga xam ne moom moo nekk fii euh, ci Cambérène kon loolu lañ mën a jàpp ci kanam nag ñoom dinañ dem fële nga xam ne moom moo nekk ca Ngor ca xuntu ba daal di yegg di foofu di bërëb bu kéemaani bërëb bu am solo bërëb bu doy waar ni ko suba nag ñu fa seen koo jeexal ca Yoff jàmmalaay fa nga xam ne nag fël daanaka fële ñëpp di daal di daje nag bu ko defee nag foofu discours yi ak cérémonie officielle foofu lañ yem Cheikh Diop di jaajëfal di nag wax ne fii daal ci Cambérène tey appel bi ni mu tàmbalee am na solo jaajëf Pape Fara man itam ma lay jaajëfal bu baax a baax ci liggéey bu am solo boobee dégg ngeen yi ñu nga ca fa nga xam ne moom moo di ca Cambérène dégg ngeen itam ah, kaddu yi nga xam ne biral nañu ko buñ jugee foofee daañ ñëw fii ci xunt mi ah, ci barab bu doy wi li nga xam ne itam ah, Seydina Limaamu Laay amal na fi aw jaar jaar waaye dégg ngeen kadd yooyu bàyyi ko ca Cambérène waxtaanee na li nga xam ne moom moo di tolluwaayu jamono rawatina ñu seq langue bi ngir jàmm ak penco itam ñu mën koo amal fii ci réew bu Sénégal moytu lépp loo xam xamante ni euh, da di euh, fitna fitna googe itam xam ngeen ne euh, ni ki démb fii ci réew bu Sénégal lu ñu nemmeeku la bëri na itam ci aw pëccxoo woo xamante ni nemmeeku nañ ko fii fu ci mel ni ca bët gànnaar bu réew bu Sénégal benn étudiant bu université Gaston Berger woo xamante ni am na ci lu tollook ñaar fukki at ak ñaar moom moomee nag mi ngi wuyoo ci turu Alpha Yoro Tunkara moom moo daal di génn àddina ci fitna yi nga xam ne nag moom la ñu fa nemmeekoo waaye jàpp leen ni ci jamono ubbi nañ aw l'enquête ngir daal di xam moom moo ko faat enquête woowu itam euh, ñu ngi ko dénk rek euh, section de recherche si samay kàddu télévision euh, Futur Média mi ngi koy jàll askan wu Sénégal rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo di njabootam loole lépp itam ñu ngi ko tënk ci bataaxal boobee nga xam ne moom ngeen ni janool ci seen kanamuk écran ñu des ba tey euh, ci fitna ki nga xam ne moom moo fi euh, amoon daanaka yemul woon ndar géej képp dong fu ci mel ni euh, daara jolof mbuur ak itam fii ci ndakaaru lu ni mel la ñu fi rekk daal di nemmeeku ay sànnantey doj diggante waaye takk der ak itam ñenn ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi tax na itam yenn ci ay taskatu xibaar itam ñu jot leen a bunduxataal bu baax a baax ku ci mel ni suñu consoeur bu Seneweb moom ab sa Anne moom itam gis ngeen waaye takk der woowee nag dóor yi nga xam ne daal na koy amal ci jëmmam jooje moom ak kamu àndal gis ngeen ko noonee eh, ci li nga xam ne moom moo di eh, image yi bi ñu ko bàyyee itam daal dinay dem ci kër docteur ngir rek ñu daal di xool li nga xam ne moom moo di eh, wérgu yaramam caméraman bu Sénégal 7 moom itam dañu ko rek daal di diir li nga xam ne moom moo di gaz lacrymogène ci image yi nga xam ne boobaak léegi mi ngi daw ci réseaux sociaux yi daañ ci dikkaat nu mu gën yaatoo ay wax mbokk yi egsi nañu ci li nga xam ne moom moo di euh, dossier bés bi xam ngeen ne gaaw bu nekk dañu leen ko euh, digtal tey jile euh, daañu taxaw ci métier li nga xam ne nag moom moo di livreur yenn ci ay ndaw yoo xamante nii ci la jabono ab nañu li tali bi tey jile nag daje nañu ak ñaari ndaw ku ci mel ni Souleymane Diallo ak itam Babacar Samb ñoom ñooñu nag ba ñu dakkalee seen i ab njàng boobaak léegi ñu ngi tegu ci tali bi waaye itam bëri na ci ay jafe-jafe yoo xamante ni nag dañu koy jànkonteel saa su ne abi fay ak Alioune Diagne ñoo daje ak ñoom dégg leen suñu micro ñu seetaan. bés bu jot pollution gi dañuy teel ak it naaj yu tàng gi ci biir ndakaaru ñoom livreur yi jël seen wérgu yaram bés bu jot te ko ci tali di wëndaal ak seen moto bi ngir livrer loole yëpp lu ko wundu moo di gën a mën dund dund gu baax wax itam am ci koppar Souleymane Diallo ak Babacar Samb ñoom ñaar ñoo bokk la ñuy liggéey ñaari livreur lañ yoo xam ne dañu teel a bàyyi l'école teer laa doon def après en fait teer bi ma dem ba ci yàgg teer bi fekk kiiwul quoi doxul quoi parce que affaire yëpp dafa ja rasoon après ma bàyyi léegi léegi léegi la ma dugg dugg ci jaay yàpp bi quoi ak livre bi nii. avant li jàng après dama arrêté jàng xam nga xam nga rek boo nekkee ndaw dawal moto yooyu noonu après nga dem ko def ko liggéey daal. Babacar bés bu jot day def course diggante Fass ak grande mosquée bu Dakar ngir mën a yóbbu document yi. genre client bi moo lay woo jox la colis bi wax la destination buñ koy yóbbu après mu jox la numéro bi après nga dem boo yeggee foofu woo ki ko war a recevoir après jox ko comme ni ma def nii. liggéey bi bu njëkk amoon na koppar waaye tey ñoom livreur ne. seeni bénéfice ma ngay wàññeeku bu baax. bi ñu doon doog a débuté genre da nga doon am ay vingt cinq mille des fois nga am trente mille mais léegi moom dafa yàqu dafa bëri daal. ci seen yoonu liggéey bëri na lool risque ya nga xam am na ko. loolu moom chaque jour chaque jour dañ ciy jànkonte ay ay ay ay problème yu métti quoi wallaay. Euh, ci am ci ci kii bi quoi ci embouteillage bi nii. ar day taali soo daanoo sa bopp mooy njëkk yegg léegi nag bu fekkee solo casque nag boobaa. catastrophe day am quoi moo tax. léeg-léeg ak tali yu yàqu yi marchandise gi mën na yàqu. parfois produit boobu boobu dañ dañ dañ ciy perdre exemple boo boo ko doon jaay mille mille francs prix prix bi doo doo ko mën na jaay mille francs da nga koy jaay ay cinq cent yooyu yooyu noonu ko ay yor poli jàmbur mu yàqu soit mu daanu léegi nag des fois nga dal si ay clients yoo xamante ne ñoom ils sont compréhensifs. ci bés bi dinañ dajeek waaye takku der yi ñi nga xam ne nag. yor nañ seen i kayit yu baax ñoom ñi kenn du leen arrêté. Euh, genre papier rek la ñuy contrôler soo matalee papier yëpp après ñoom dañ lay bàyyi daal mais. mais soo matalul yi nag foofu la inconvénient di amee daal. waaw man matal naa waaw. wuuteeg lool ñi nekkut ci yoon. nga fii la ñuy ak fee. comme ça boo boo boo jëmee ba kii nii quoi jub si ñoom nga xaw a wax te teg teggi. c'est-à-dire yow ne xam nga rek fii moom mooy loolu quoi billaay. yoon la mu ci wax lu leer la waral nañu sol suñu dàll ñëw ba fii ci service des mines fii nag niñ ko gisee agent yi ñu ngay contrôler moto yëg oto yi bu baax ngir mën leen a jox lii di carte grise wala sax permis gu ñu dawale am nag yoon ku baax. parce que fi ñu toll nii boo amul assurance amoo dara pour gars yi pour gars yi pour gars yi sama tool day xaw a métti. da ngay am acte de vente moto buy ñëw day ñëw ak CMC ci li ma xam day ñëw ak CMC bu ñëwee CMC nga dem jël sa rendez-vous visé ñu visé la ko nga ñëw fi fay sa impôt ay quelque temps da ngay jot sa carte grise dem assuré wut sa casque nga demal normal. livreur liggéeyam jël bagage ci diir gu gàtt mën ko yóbbu liggéey la boo xam ne bëri na lool ñi ci gis ci seen bopp waaye itam jafe-jafe yi ñàkku ci ñoom ci seen liggéey ñoo moom seen bopp kenn conditionné wu leen faaw nag ñuy jël seen i responsabilité la leen war moo di seen diggante client yi faaw mu ratax loole bokk na ci lay gën a yombal liggéey bi Euh, ci seen liggéey boobee nag ñoom livreur bi ci leneen li ñuy gis seen bopp bokk na ci li ñu dippee service traiteur à domicile ñenn ci ñoo xamante ni itam ñu ngi yëngu ci wàllu restoration ci la jamono loole lañu jël tax na itam euh, suñu ay ndaw daje nañu ak ñoom amal aw reportage na Ndiaye ak Pape ñu teewlu. ci jamonoy ñoom Adja Fatou Bintou boo amoon xew sa kër ku ne day jàpp ci togg gi. daga daan daan amay xew. boobu ay beñe lañ daan def ak di ko laxas ci ay kayitu ciment yi kayit yi moom lañ daan laxase suñu beñe temps biñ daan géntee ah, service yi daawul demee noonu laax yi dañ ko daan lakk ci ay leket ku ne sa mbox loo dugal sa loxo. bi service yi ñëwee loola lépp daal di soppeeku. bu fekkee yaa ngi sëy sa jëkkër bu xëyee dem yoo tamit xëy nga dem euh, yenn invitation yi boo ko bëggee da ngay nga contacter traiteur. bu dee da nga bëgg a offrir ndekki ñu proposer la suñu ay variété bu fekkente ne da nga bëgg a offrir ay plat chaud tamit ñu proposer la ay variété yu ñu am am na ku lay contacter ne la dama bëgg nga defal ma buffet sama kër nga ne ko ñaata personne mu ne la bon bëriwuñu 15 la ñuy nekk wala 20 nga gis keneen contacter la ne la dama am mariage. ba ci client yi ku ci ne da ngay tànn li la gënal. man ay goûter rek laay commandé. waaw donc euh, sama kër dañuy togg yooyu yëpp ñun donc euh, man ay goûté rek beignet salé comme fataay neem aileron. tout dernièrement rek euh, le 13 janvier bi passé sama anniversaire mais sama doom yi dañ ma bett ak benn service boo xam ne sax foogeewu ma ko woon waaw dañ ma bett defar ba mu baax bu ñëwee ma ne la lii nag ñu ne ma daal lii moom léegi kenn sonnatul da ngay woote rek commandé rek ñu indil la ko livré la ko sur place. maam Fatou Thiam moom chef d'équipe la ci service traiteur li mu gis rek mooy lépp organisation la ak teel a jóg boo amee xew wala sax nga bëgg ñu toggal la sa kër. boo bëggee ñu ñëw sa kër toggal la dañuy teel a wax nga ne bëgg suba ngeen ñëw sama kër ngeen toggal ma yónnee et tout ça mën nañ toog tey deux jours ñu am ku ñu jël buffet wala jël ñu mariyage wala baptême wala ma wala anniversaire yëpp dañuy dem yëpp. at yi di dem restauration fi mu toll nii lu bari daat ci soppeeku ba sax am na ñam yoo xam ni dañ koy congelé ñu duppee ko surgelé client yi mën di ko jënd léeg-léeg bañ dara bett leen. nga xam ne yow tey mën nga ñëw ne jaay ma fataay wala gambas pané. wala nga ne defal ma aileron wala nga ne defal ma aumônière wala ay tyrian ainsi de suite léegi yow tey imagine nga jënd ci variété yi ma la limal bu nekk 20 pièces boo ñëwee sa kër lan ngay xool la nga mën a lekk ngay jël nga terminer cuisson ba parce que c'est précuit. livreur yi itam dañ ciy gis seen bopp. bari na ñu may liggéeyal bari na trop sax ñu may liggéeyal. comme guddi gi dina ma avertir li ma war a def suba te loolu dafay arranger livreur bi dina ko bàyyi xel comprendre léegi nag bu ma waxee loolu man dinaa ko bàyyi xel avant heure bi dina fekk moom pare na léppam livraison bi yëpp pare na damay ñëw rek jël yóbbu. des fois day am ñoo xamante ne encaissé na leen am na ñoo xamante ne encaissé gu leen su dee leen encaissé daf ma koy wax su dee encaissé wu leen daf ma koy wax. service traiteur à domicile nag nekk na loo xam ni indi na beneen kanam ci restauration ñi ko séq nee nañu ñu ngi ciy gis seen bopp bu weesoo loolu ñu ngi ciy wutal ay xëy ay ndaw. yu ko soxla ay wax may mun a njaay mu mel ni ñam yooyee man xam naa ne euh, euh, euh, jot nga cee barkeelu bu baax a baax ginnaaw ñam yi mbokk yi ñu taxaw itam ci wàllu taax ndax jafe-jafe yoo xamante ni yenn saay yi koy am yenn doomi aadama dem sax ba di ci ñàkk li nga xam ne moom moo di seen ay bakken ñee tabax kër yooyee nag yenn saa du ñu dëppoo ak li nga xam ne moom la ñu war a dëppoo ci biir itam lu ci mel ni suppresseur ascenseur ak yeneen yu ñu du ca am waaye jàpp ne ñuy dëkk ca kër yooyee nag yenn saa day jafe ngir rek ñu daal di kalaame mbir moomee Euh, tax na suñu ay ndaw dem dikk suñu ay micro Abdoulaye Diop lañu ciy àndal ñu seetaan reportage. ab lakk am ci biir immeuble bi ñi nga xam ni ñoo nekk ci cité Ataya jaaxle lool ndax amuñ fuñ mën a jaar ngir mën a wuti wàllu li ko waral nag mooy seen ascenseur bi doxul. maanaam escalier yi fu muy jaar foofu la local électricité bi nekk te départ bi yëpp installation yi am àndul ak norme yi foofu lay commencé de ce fait ñi nekk seen euh, appartement du ñu mën a génn jël escalier yi du ñu mun a jël ascenseur yi comme que problème mu courant la courant ba coupé na parce que de secours yi mu def tamit daf ko daggee premier góor yi nga xamante ni dañuy fippu sa pour jàppale ñu bu ñu ñëwee ba premier dañuy takk dañuy tak parce que mënuñu jóge premier tëb si tëb si suuf kaaraange nekkul rek seen problème bu ñuy jànkonteel fii waaye ndox moom jafe na loolu pour ñu am ko. fonds yi ndox mi di jaar ci biir mur yi di jaar ci câble électrique yi te loolu wóorul ci bâtiment ku nekk xam na ne euh, bâtiment ndox buy jaar ci ay mur wóoru ci en plus de ça ñu am ay bâche à eau yi ak ay réservoir yoo xam ne doyul population bi dëkk fii pour chaque bâtiment. loolu tamit am ci ay gox yu bari ci biir ndakaaru ñi nga xam ni ñoom ñooy dëkk ci étage yu nekkee ci kawe ñu ci bëri duñu am ndox wala ndox mi lu muy ñëw du bëri lu ci mel ni kër gi nga xam ni boo yéegee ci ñaareelu étage robine bi du xel xelli boo wàccee ci première tamit naka noonu ci suufa suuf nag robinet bi mu ngi xell bu baax ci waxtu wi léegi. pour am ndox yëpp da xaar bu guddi pour mën a pour mën a root ndox yooyu yëpp day metti si ñun hmm, ay côté 23h 22h 22h 23h yooyu lay tijji daal bu demee fajar mu daal tëjaat. kenn ku bokk ci mouvement des locataires actif du Sénégal dëkk Ouest Foire di nettali jafe-jafe yi nga xam ni locataires yi moom la ñuy dajal. bu dëkkee ba troisième ba quatrième amaana nooy demee ndox mi du ñëw. te munoo chaque jour di wàcc di rooti di yéegal munoo ko aussi beneen bi mooy li ci mel ni extincteur te ñu ci baree bi ñu ko sóoraale seen kër yi wala seen immeuble te dafa am solo tey ñaan ma ko yàlla tey kër gi bu fa jiyee amoon tey loolu noonu mën nga nga fay jiyee boobu tey def benn problème wala du àgg ci yenn niveau yi nii. am nañ sax ak rendez-vous ak ku jiite association locataire du Sénégal moom nee na li muy jot ci li ñu koy nettali ci jafe-jafe yi nga xam ni locataires yi ñu ngi koy dund. bëri na lool. l'existence de ñàkkum ascenseur ak ñàkk ndox dina metti trop ci ñi nga xam ne ñooy dëkk ci location yi rawatina jigéen ñi ndax euh, da ngay yëg ba ci euh, ñaareel wala ñetteelu étage ngir yóbbu ndox wala yeneen. Euh, à y ñeneen ñi nga xam ne tamit mooy woyu laago yi eh, nga xam ni tamit dañuy eh, dëkk ci deuxième wala troisième étage bu ñu amul ascenseur tey metti ci ñoom. ki jiite direction de la construction et de l'habitat ni andi nañ ay coppite yu bëri ci code de la construction ngir mën a garantir kaaraange ñi dëkk ci biir tabax yi. batiment ñu bëri dañ ko miin waaye miin ko taxul nga ni mën naa ko defar. am na ñoo xamee dañ koo jàng quelque chose la boo xamee ne dafa doy waar ndaxte nit mën na cee ñàkk bakkanam ni ci nit ñi di ñàkkee bakkanam ki nga xamee ne moom moo jëloon xaalisam investir ko tamit noonu la ciy ñàkkee lu baree bari donc ñëpp a ciy perte bu fekkee ne def ñu ko ci yoon. li nga xam ne nag moo jëm ci wàllu ascenseur yi code de la construction li mu wax mooy bépp tabax bu ñuy dëkk te mu am lu ëpp ñeenti étage dafa war a am ascenseur lii nag ñu bëri duñ ko respecté li ko waral mooy amul benn daan bi nga xam ni dinañ ko teg promoteur immobilier yi locataires yi nag di dund ci anam yi di ko booleek ñenn ñi nekk ci ay tabax yi nga xam ni mën naa daanu saa su nekk ñeneen ni duñu am ndox wala ascenseur wala sax seen kaaraange nekk ci xottu gerte ba pare nu ñuy luyee kër yi cher lool. aywa mbokk yi ñu ñëw ci enquête euh, bés bi ñu leen koy faral di baaxee sa su ne tey jile euh, daañu taxaw ci benn projet boo xamante ni ñu ngi ko euh, amaloon ci atum 2008 ci jamono yi ki nga xam ne moom moo fi nekkoon njiit bu réew moom maître Abdoulaye Wade li ñu dippee bateau taxi ñu sooboon ci lu toll ci ñetti milliards ngir daal di yombal dem beeg dikk bi jaaree la ko ci li nga xam ne nag moom moo di waax yi waaye jàpp leen ne ba suñu jamono yàlla tey nag France Tëngéej la ko wër daal di tas suñu ay ndaw itam def nañ ci aw reportage du Fall ak Thierno Laurent Mendy ñu seetaan. lu mat ñetti milliards ñu ñàkk ko ci projet bi nga xamante ni bokkoon na ci projet yu gënoon fës ci régime Wade yi bato taxi yi ñu annoncé woon ko mu juróon nag yaakaar gu mag ca askanu waa Rufisque fukki at ak juróom benn gannaaw ba ñu lancé bile projet tey ji ñu jël suñuy tànk dox ba foofu ngir xool li nga xamante ni moom lañ fa bàyyi woon mu di kee bi quai bi ñu inauguré ko ci atum 2008 tey ji boo xoolee géej gi lekk na feer yi lu ci ëpp ci pont bi bënn na bateau taxi yi monte fii la ñu waroon kon eh, di teere askan wi koy fàttaliku. yi biñ ko eh, initié dañu toog ba un jour rek après ñu ñëw fekk boobu instant boobu mbaar mi fële la nekkoon quoi lépp foofu la ñu nekkoon mag ñi foofu la ñu bàyyi woon ñu toog un bon jour mu am ñu ñëw ne fii dañ koy bëgg def bateau taxi et puis di jóg. ñu ne buñ jógee fu ñu jëm ñu ne jokkul kaw wala cëw leen ñu ne non loolu mënul nekk parce que fii sunu maam yi ñoo ñu fi bàyyi kon jóg bi noonu te avisé wu leen ñu loolu day yomba ñu def convocation dem préfecture bi ñu demee ñu waxtaan léegi après bi ñu wàcc si waat sur le terrain ñuy xool nag négociation bi nan lañ koy defee mais booba yaakaar dafa juddu ndax tam si gàttal bu ñu waxtaanee ñu wax ñu ne projet bi bu doxee même kiy jaay gerte caaf ba si gis boppam. projet bu yaakaar la woon lan moo war a mën a tax nag ba doxul. yaakaar bi ñu fi amoon bari woon na trop parce que préparer woon nañu pour boo amee sa bagage dem Dakar nga jaay daf doon yombal yoon bi. dafa am yeneen mystique que ku nekk dëgg na dëgg ma mooy place am place am la këram la Edon ma fi nekk ba fi liggéey dara la ngay tàggu la ngay tàggu wax ak moom neexal ko soo ko li nga bëgg di nga ko am. daal ay yàq xaalis la boo xamante ne bii kenn mënu la ndax jënduloo boto géej bota dex nga jënd projet bi bi biñ koy def defuñu ko si dex si géej lañ ko def te projet bi di projet géej projet dex la xam nga yooyu ay jaxas-jaxas la ñu ñëw tamit xeeb ñi fi nekk laajuñu leen projet bato taxi yi waroon nag yëkkati Tëngéej ville de ci wàllu koom-koom ak lépp waaye daal dañoo tànn ay nit yi nga xamante ni du ñoom la ñu waroon tànn ndax euh, bi ñu taxawalee projet bi ñu ne leen fii de ni mu mel baaxul Euh, ñu ne non non euh, gars yi bu ñu ñëwee xam nga rek Sénégal ni muy demee nañ defar ni nangam ak nangam bi jour bi bato yi ñëwee di costé dañ doon tafu di toj quoi bato yi yogee fekk boobu commandé nañu bato yi def nañu loolu yëpp ba war a kii fekk boobu loolu échec na dèjà. gannaaw nag fukki juróom benn nga xam te ni jaar na ci bi ñu lancé projet beeg léegi askanu Tëngéej ba tey ñu ngi rêvé ci seen projet boobu boobule. nee nañu seen wil bi soxla na ko lool. bu amoon nañu yaakaar ne bon bu ñëwee dina doon fàttali satisfaction mais heureusement xam nga boobu ba léegi nii depuis loolu xam nga fi mu ne nii feeraay sax la gën a jege. manoon na tane nag manoon na tane comme sama kalaat gi nga xam dem nañ retraite ba pare bu nekkoon si bato bi di takkay amaar di tekki sax ma xaw a tane. dañuy dugg si bato bi di dem Dakar dina gaaw mën na naa am nag mën nañ siy def ay une minute te brise lii bi tamit maire bi tamit dina la duggaale. ne fii mi toll ak milliards yu ñu def si fii. war nañu bàyyi mu nax saay mais loolu perte bu rëy la. fii ñu taxaw nii mooy quai bi nga xamante ni moo waroon kon euh, servir lii di bateau taxi yi nga xamante ne lancé nañ ko euh, ci atum 2008 boobaak léegi wax nañ leen ko mu nekk fukki at ak juróom-benn ginnaaw bu ñu laajee population yi ba pare gis ngeen yaakaar biñ ci amoon euh, li nga xamante ni mooy commerce bi mooy dem ak dikk bi ni mu waroon dundalee li nga xamante ni moo di ville de Rufisque ak déception bi nga xamante ni ñoom am nañ ci waaye itam expliqué nañ ñu lan moo waral échec yi ndax dégg nga leen ci biir reportage bi fàttali ni projet bi lekk na ci lu waaj a tolloog ñetti milliards ndaxte jotoon nañu sax réceptionné li nga xamante ni moo di ay bateau ngeen gis ko nii mu nekk quai boo xamante ni defaroon nañ ko ci atum 2008 mu nekkoon projet phare bu euh, régime euh, bu Abdoulaye Wade nga xamante ni bokkoon na ni ci li euh, décongestionné Ndakaaru mu nekk projet boo xamante ne population bi itam laaj nañu ñu relancer ko ndaxte dafay dundal seen i ville te jàpp nañ ni kon Rufisque jamono ji nee nañu ville morte la projet bi bu ñëwee dana créer emploi dana suqali ko moo di seen koom-koom yaakaar yaakaar googee euh, tas na Mamadou Fall ñu jaajëfal la bu baax a baax ci liggéey bu am solo boobee mbokk yéen itam euh, jër ngeen jëf waxtu yëkkati jotaay jot na dig daje ngoon ak rédaction bu télévision Futur Média 19h30 lay doon ak itam 20h dinaa fi teew jukki leen xibaar yi ci kàllaamay euh, kocc waaye lu may loolee da ngeen des ak suñu ay programme xam ngeen ne yor yoru Cambérène appeluk Seydina Limamou Laye El Mahdi télévision Futur Média taxawaay wi nga xam ne nag am na ko ci wàllu woowee tey jilee si suñu ay programme lu mel dina ci bokk loolu euh, donte euh, tàmbali nañu bu yàgg waaye fas yéene ñoo ànd ak yéen ba ëllëg incha allah euh, ci li nga xam ne moom moo di appel bi ngoon daañu dem fa nga xam ne moom moo di xunt ba daal di leen digtal lépp lu fa rusandi ci ay xibaar jaa ngeen jëf mbokk yi ñu dug jàmm